Daouda la champion am di waa Guèye bu baax waa Amadou Lamb di nuyu bu baax Aliou Aliou di ko bëggee bu baax a waa wala waa Gambie waa kër waa kër waa Ndimbu bu baax a baax di nuyu waa Fouta ak waa Casamance. mais li nga sànq dafa garaaw. waaw Baye Ndiaye moo fi jaar Baye Ndiaye. Ah. waaw. mais victoire neex démb nga bëri fii jàpp ndoy Ndoye manipuler ko daan ko. waaw sant yàlla rek liñ ko dañ ko mën nekkul luñ tànn. Sénégal dañoo mel ni dañoo xamul kuy caat daal la xarak Sénégal yëpp nee sa jëmm ah sa doole ëpp sa jëmm. non gars après la ñuy comprendre après maa ngi wër maa ngi wër gars yi di wër amateurs yi ñu ne ma Modou sotti am na géejawaay. lu fitir Balla ngi nii Jackson mooy Modou Lo. yaa ngi ne fitir Balla Gaye. ah loolu la gars yi di wax de. mais démb daan nga Pape Ndoye te xeexoo da nga ñëw wan ni Sénégalais yi dama mën lu waral loolu nga choisir ñëw bëre bi. non force la imposé doole. maanaam bu ñu gisee port dañ koy exploité. da nga jàpp ni démb am fooy yoon bëre mooy jeexal affaire yi. waaw ah, da rek. daa bëggoon wóor ma njëkk a wóor loolu la. gis nañ sa trois dernier combat yëpp sa diggante ak Diène bu Yoff sa diggante Colifay sa diggante Pam Ndoy arbitre suuf la rek nga daw seen kaw booyaloon dara lan la. liggéey la rek di liggéey rek lépp dina baax dañuy liggéey rek. fu mu toll nii jaar génn na si Pam Ndoy laamu kenn mënatu ko bañ sa diggante kan kan kan man tey forna weewu bay ñu ngi dox sa ay combat waaw ñu ngi dox samay combat waaw mais amaana léegi mu taxaw. Ah. waaw mais ci kaw rek doo bëri suuf. pourquoi nga ne ci kaw rek doo bëri suuf. parce que mënuma jeexal ñëpp waaw examen la woon réussir naa man ma jox ñu ne ci kaw. dégg naa promoteur mag mi ngi dox sa diggante ak Diène Kairé un. <laughs> waaw gars ñu ngi si may di ñaan yàlla mu sotti rek. ah man dégg naa daal ñu ngi dox mais si côté Diène la desee si côté Diène kayre waaw ci côté am la taxawee examen. Dabu Thiès dégg naa ko tamit. waaw grand frère. ah man damay wër rek tey si tey promoteur bi ngay dox mu ngi woon si arène bi tey sa diggante ak Modou Anta bu Thiès. waaw bëgg nañ ko de. Ah, pare nga. pare naa waaw. dégg naa sax gars yi dugal sa diggante ak Pokola gis naa dégg naa tamit gars yi di ko waxaale. laa ma ci jot rek yomb. waaw. mais dama dégg gars yi naan bëre xaw ma seen ay mbokk la bëre. en tout cas daal lu jot yomb. ñoo ngi bu baax a baax. démb ñëw man conseil ma. te sa combat noonu la bu wér a wér. non forage yooyu ba yéen ñaar doon bëre man dégg naa loolu promoteur doon la ko dox tey promoteur doon la mais dégg naa yéen ñaar mu ngi si man xaw ma daal. man xam naa. <laughs> waaw man xaw ma. noo gisee waaw ah, neex na de neex na trop di ñaanal Jackson yàlla may ko ndam jël bu set wecc mën nga démb yaa doon jaamante fii te yaa toog di seetaan noo gisee affaire yi activité yi loolu toog di seetaan daa neex sax non loolu dafa garaaw dafa neex ah. billahi te démb yaa doon jaamante fii instant maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi yërëm Jackson instant bi nii parce que man xam naa lu daj période bi parce que li daj nii démb moom laa doon daj moo tax dama koy ñaanal yàlla may ko ndam bu gisee tribune bi nga xool ngay xale nga xam ñu fi topp ñëpp say magang fi say raxang fi say am di jàmm ñëpp topp la ba nga xool tribune loo yëg. waaw ma yëg nii lu mën di xew daan rek moo tax démb lu mën xew même fi bakam doon des dafay des mais damay am ndam. ana Balla Gaye yaa ngay rek ak tey suba woo na ma. dafa mel na si xale yi gën a fonk bokk na si xale yi gën am gën am confiance. waaw sama waay la nag dafa yàgg depuis ma booy. combat moo tabaatee noo ko gisee. ndam rek incha allah. waaw. Ah. jërëjëf maa ngi lay bàyyi. amal jàmm am. lan ziar naa la. fii la waree yaa ngi si jàmm. waa rek. activité yi. sant yàlla bu baax a baax. mu naa la maa la raw koo na ma. maa ngi ci réew mi de. non nekkoo fi nekkoo fi. non maa ngi ci réew mi de. maa lépp tranquille. lépp tranquille lépp tranquille. lamb ji namm na la waaye lan deux bi. lamb ji maa ko a namm. na la a namm fuuf. yow. non non bëre gu ma waaw amul ku ma bëreel. amoo koo bëreel. en tant que champion bu toll nii yow nga ne amoo kum ah, de. bañ a bëre wala yaa amul koo naa bëre de damaa gisul ku ma bëreel. est-ce que vraiment l'an 2000. non gëj nañ maa dox de. soo bi soo ko waaw mais instant yi moom non. dox ci sa combat. danga jàpp la ma lan la booyee ragal. waaw daanaate damay daanaate. daanaate. waaw damay daanaate non bàyyi loolu waaye loo a booy ñëwul. la demee de. mais tey ay champion ñu fi yu mel ni yow tey yow ñoom sa diggante ñoom neex na. ñan yu mel ni Serigne Ndiaye Coriace. ah waaw sant man maa ñëpp làmb la. mel maa ñëpp làmb la maa ngi ñëpp. mais mais mais arène boo toogee gis yéen xale yi di bëree lu def l'an 2000. non mais sport la rek lii garaawul moom saay lii moom dafa ñu pression quoi miin nañ ko quoi miin nañ ko dafa ñu pression quoi. en tant que champion ba nga gëjee bëre su ma juumul stade Léopold Sédar Senghor la. waaw su ma juumul. ak Fourouz waaw waaye ak bëre woo. tey arène nationale bi nekk sa biir gox Pikine ngay doomu Pikine di mobiliser kon gars yi tey bëre arène nationale nga taxaw di jàkkaaroo enceinte bi lu may def. waaw dara yaram bi day xasan mais dara da ngay essayer rek da ngay essayer rek lu jot yomb quoi lu jot yomb affaire yi moom gars yi méttiwul quoi lu jot rek yomb. noonu la demee. ubbi nga porte yi daal. ah ubbi nga porte yi. non ubbi naa porte yëpp yow daan ñoo ngi bëre yow mënoo bëre nga xam ne li nga yombul moo tax. amaan na combat ñaari combat sa kaw amaan na combat. ay Alioune Seye ay Bébé Saloum ñoo ñëpp ñoo ngi bëre ñëpp maa leen daan. Bébé Saloum daa may chance Jacob Baldé la may chance. waaw nag ñoo ñaanal Jacob ndam quoi. def na lu nice. yaram bi ku nekk pour may si booy yi chance booy yi ma gis nii. booy booy booy man nag booy bu tàng jër laay may chance. du ma may tàng jër jër. kon ngeen booy kon ngeen booy. kenn lu ma tudd kenn du ko may bës mu foog ne ngi si kawam. mais boobu tàng buñ la ko joxee léegi dañoo ragal koo tudd turam di yaakaar ne. yóbbu nga ko sëriñ. Ah. waaw yee. mais fu mu toll tudduma kenn waaw booy bu pare waaw booy bu tàng jër nag ah. jër. par Youssou Ndour école Ligue Balla Gaye si pare na. booy bu tàng jër kay jeexal na wax yow bul lim tur. Thiatou Daouda Fall mu bëre ak Pam Ndoye démb. booy bu tàng jër man limu ma benn tur <laughs> booy bu tàng ah. <laughs> dégg nga wala booy bu tànk laa bëgg a bëri lu ma bëree ay laal mu daanu. daam seen. damay daanaate man damay daanaate. damay daanaate. lan daal fowul. damay daanaate de. mais noo gisee noo bi mu bëree tey daan. moom nice nañ ko jox si moromam yi. moog Diop 2 lamb bu neex la. waaw loolu lamb capital la. presse Diop 2 loolu lamb ju neex la. na ko moromam jël ah, parce que ñii daal diis seen kaw. ñii moo leen ëpp doole ñii moo leen dàq bëre. Ah. nañ ko jox moromam a bëreel presse. moog moog loolu dara doxul seen diggante. loolu lamb capital la loolu moo dàq saison bi na ko gars yi tëjee saison. amateur nga. waaw amateur bu mag. barki Demba Ndiaye noo gisee sorti Eumeu Sène diggante moo Sa Thiès. moo fa wane boppam rek Eumeu Sène lu def la def waaw maa ngi doon wax ne moom su dóoree rek ñàkk mbapat rek moo ko arrangé far mu yàlla yoo xam nga mbër bu mag la mu mbapat daan ñoo ngi ñaan yàlla victoire bi jik ko mais na jël combat nag parce que âge bi du ko fi xaar te xam nga lum mu si lamb dafa bëri te kat la. te forme baa ngi fi instant yi waratul année balance ben année année yep la wara beure ba muy baye beure beure na ñaar waaw saison beure na ñaar mais saison bi di ñew na wat yeneen ñaar rek. parce que yene nañ ko ko parce que dafa sonu ci lamb bu ma sen dafa sonu sonu ci lamb lamb da ko war fay. comprendre nga mais bu mu bu mu ci mom quoi na ubil boy porte yi booy yëpp na beure ñom dara japp ne fu mu toll war na mën a jël ñaari avance boy non mën na beure avance mën na beure ku nek mën na beure boy mën na beure mak na beure boy boy ay franc ay yoy non yoy ay adversaire am lañ na leen jël ñoom ñëpp boole leen ci benn saako comprendre nga bërëg ñoom ñii mu daan leen ñaar yàlla daan ñëpp parce que ñun moom lañ faral waaw mais nag waratul année blanche quoi man su ma ko doon conseillé dama ko daan waroo année blanche waaw. noo gisee Ama diggante moo ko Gris Bordeaux war a bëre bu bu ñu tabasee ba pare rek le 30 juin. waaw loolu mag contre xale la combat combat mag contre xale la ñoom ñaa ñëpp ñoo nekk ci ay jafe-jafe comprendre ga mais Ama Baldé moo gën a jeune lamb moom la war a gën a jaral victoire victoire Eumeu Sène bi dina am lu mu ko def dina ko motiver parce que xam nga ñun ñoo boo ko Eumeu Sène daan na Sa moo tax Ama Baldé na def attention si Gris Bordeaux. loolu daan na Boy Niang Ama Baldé. Ah, xam nga lamb nekkul ay affaire lamb sport moom day fay. waaw yee. bu liggéey rek fayee ko. waaw lee. du yow. waaw mais ñoo ngi sant rek ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal xam nga Sénégal réew mi yàlla def fi jàmm espoir bi gars yi am si jeunesse bi ba jox leen réew yàlla bu ko yàlla bu ko yàlla tas. aussi Sénégal yëpp am nañ yaakaar si ñoom yàlla na leen yàlla jàppale xam nga si kaw seen kanam quoi incha allahu rabi. Modou Lo kii bi bëggoon si naa bëre si combat yëpp na avance bi ñëw rek jox ma adversaire ma daan ko xool keneen. damay daan waa jàmbaar ñu ngi lay de. waa jàmbaar nañ ñëw. am nañu amagul combat ay góor soog ñëpp amaguñu kuy combat. tegal teguñu dara lu leer waa jàmbaar mosu ñu waa tegal teguñu dara leer. Papa Sow tegoo dara lu leer yow. leer tegoo ko. <laughs> Eh, tegul dara tek ci table bi dara. nañ teg ci table bi dara jox gaay ñu bëre mom tamit xamna luy lamb xamna luy coono bëre même Makan daal daa wara a gëstu pour journée bi di ñëw moy la journée bi. Makan mom papa moko gëna nek nante quoi. Ah. gasson ñong ko ñaanal yalla yalla jéggal ko xara ko àjjana. yërmande suñu borom wacc ci kawam bu baaxa baax ndax xam nga participer na suñu carrière quoi comprendre nga mo do duñ ko fàtte ci ñaan ak sëñ Modou ñaa way dawlu yépp suñu borom yéssal yermande sen kaw wa mais ñom nañ jéem roy sen papa yi sen papa yi bay nañ fi wéy bu rafet booy bu rafet rafet rafet xam nga moo tax ñoo ngi leen di ñaanal chaque jour xam nga ñaan yàlla Sénégal yëpp aussi doole leen ñaan parce que foofu ñaan du fa doy yee ñoo ngi bëggee ñëpp di ñaanal waa Pikine yëpp ndam di wax Prince na ko gars yi jël Pikine nañ gën a toop si ginnaaw parce que booy bi avenir u lamb la na ko gars yi jàppale voilà dompat si sot la bopp ku am looy ñaan rek na nga ko ñaanal quoi parce que doomu Pikine la doomu ginnaaw raay la tey xale la te na lu muy def comprendre na ko gars yi ñaanal mu avenir quoi avenir 100 pour cent lañ koy ñaanal comprendre mu yóbbu drapeau bi fu ko kenn mësul yóbbu. Ah. ay Tyson ay Boy ay ñëpp. waa Pikine naan fii nii Tyson sotti na. waaw noonu noonu la demee noonu la jàmbaar la. jërëjëf jaajëf. fils de Sadio Ngaraaf ziar naa la. am bu Pikine ziar naa la bëgg naa la lu bëri. bu jàmm. sant a a baax naa loo nekk. waaw damaa génnoon mercredi bi passé laay doog a ñibbi si. fan yii dañuy gis vidéo yi nga nekk suma juumul xaw ma mara xaw ma di liggéey lu doy waar lan la dafet nga jógee moo waaw ku nekk xam na ne yow boo jug mbooloo topp sa ginnaaw mbooloo boobu daa am loo warloo ak ñoom léegi yow soo sentiree dara benn manquement ci yow rek da nga dem jéem a dem uti ji loolu noonu te yaakaar na ni lu ñu manqué woon dem nañ uti ji ko yàlla jox nañu combat le 18 août incha allah ñu nag Ama bu Malika muy le 18 août grand combat incha allah di ñaanal suñu borom defal ñu suñu ndam incha allah. rabi taxaw na di nga teg grand taxaw na grand combat la. loolu. mu production le 18. production le di août incha allah rabi. le 18 août. le 18 août le 18 août waaw. mais nag bu neex la di ñaanal sama dom day Jackson di féliciter Perez di ñaanal Duru Sané di wax Pikine bu ñu booloowee rek ñoo mën ñëpp bu ñu booloowee rek ñoo mën ñëpp bu ñu nangu benn seetaan bu pataat di dugg suñu diggante ñun booloowee rek ñoo mën ñëpp. xale bokk yaakaar Pikine di espoir. topp sa ginnaaw nga jógee say sa defet ngay bëri sa papa dégg sa ay moyens moyens bëri teg taawul bi tey la nga jàpp ni moo la manqué si làmb ji tey waaw gis nga man du sam papa rek xam naa sam papa rek la ñuy gis mais am na ñeneen ñu nekk si ginnaaw ñuy gën a sonn sax sam papa xam nga ay ñoom ñambe ñoom Sallo ñoom Cheikh Sarr dañuy sonn si man bu baax a baax a baax kon soo xamee man dama daan ñëw fii saison di teg la ay quatre victoire du ma daanu mais su ma ñëwee mu am nu mu demee rek am na lu ñu yaakaar loolu la taxaw nañ ci bu baax di ñaan suñu sordi bi mën nga bëre mais da ngaa bëgg xeex waaw xama lamb ak xeex ñoo ànd parce que tey ñun ay doom Pikine lañ boo ñëwee bëgg ñu humilier wala nga bëgg ñu wan dara rek dañuy jaayante ak yow loolu moo ñuy yóbbu chaque jour mais yaakaar nañ màgg nañ ci loolu yëpp suñu ñëwaat fii moom incha allah rabbi dinañ gisaat beneen Fils de Sadio. kon nag li ñu ut beneen Fils de Sadio la gis. beneen Fils de Sadio bu bees taax incha allahu rabi. sa grand Eumeu barki jël bu rëy barki dem mu taxaw ginnaaw raay ne nañ la bàyyi xel si champion Pikine nga bokk Eumeu Sène noo gisee bi passé diggante moo Sa Thiès. moom des may wax ay wax day daw sama yaram ma dem entraînement entraînement mu mu ne ma da barki day sol taal simi ko may ma ko di yëkkati xaalisam di ma ko may moo jabaram te loolu rek sas la war a su may dugaat fii leneen laa ko war a wan allah bu jaree ma bàyyi sam baxan sax incha allah rab dinañ ko fi bàyyi mais dañu yóbbu ndam incha allah am. nu gisee Pikine ñëwaatam si làmb. waaw Pikine xam ñun ku ñu xam-xam ni si booloo nekk benn xam gis nañ Boy Niang ñëw na taxaw Ama Baldé ñëw taxaw di ñaan Ama Baldé yàlla defal ko ndam suñ booloowee ñoo mën ñëpp barke Seydina Muhammad waaw di jiital si Pape Sarr ay pigin Dakar Pokola gaa yëpp nañ ñëw ñu suurewu rek bu ñu nangu benn seytaane di dugg suñ diggante ñun bu ñu boolewee ñoo mën ñëpp ñëpp ñëpp laa la wax waaw. jërëjëf am.